Bienvenue sur Salam Vision. ñu ngi lay siyaare bu baax a baax macha allah. yàlla na yàlla nangu siyaare. naka bokk taalibe yi. ñu ngi fi ñëppan ci jàmm. alhamdulilah naka waa waa Xelkom. waa Xelkom ñu ngi fi ñu ngi ci liggéey bi. Hmm? coono yeeg dérangement yi ndax nekk ci ndigal moom ñu lay woo téléphone di la sonal moom ñu ngi koy tuub. amul solo. waaye studio Salam Vision moom xam nga yow dañoo bokk ak yow lépp. li ma doon wax yëpp mooy la ma waxtaanoon sëñ Dame Lo dugal ko ci internet bi cent mille personnes seetaan ko kenn ku ne di commentaire kenn ku ne di wax kenn ku ne di am lu muy sikki sàkk kenn ku ne am lu muy dugal di génn. bu ñu yàlla defalu ndam lan nan la ñuy def man ak yow mi la woowoon. ndeysaan wallaahi dëgg la wallaahi. kon bi ñu Sénégal bi yàlla dogalee fi tey Sénégal am ndam ci kaw lii nga xamante ne mooy Équateur ba qualifié ci deuxième tour bi yow sa gis-gis lan la ak sa yëg-yëg lan la. Euh, sa bu soobee yàlla ko dogalam. te mm-hmm. dana ci génn ma man nag maa ngi lay ñaan fi mu wax dëgg yàlla exclusivité bi de nga may ñu ko ñun ndax ñun dañoo porté woon volontaire ci yow ndax am na lu ñu xam ci yow am na lu ñu gëm ci yow te am na lu ñuy dund ci yow ndax dañoo bokk yow Serigne Touba Cheikhoul Khadim. waaw loolu xam mm-hmm. muy lan. muy li war a dugg dugg. Mm-hmm. kenn koo xam ne da doon seetaan mosto bi. Mhm. yàlla dogal mu doon déglu suñuy wax. Mhm. ba suñu borom dogal mu mu kiri. biir oh. sax fi ma nekk ñu woo ma di ma ko wax yàlla dogal mu mu mu mu ñàkk ba kanam ñu delluwaat na ci keneen koo xam ne. Mhm. biñ dugalee biñ gis bi Sénégal bi ñuy égalisé. waaw moo ne ci sensé dafa ñàkk ba kanam moo boole moo boole ñaari naqar moo tax mënu ko maa wax. alhamdulilah mais duggoon na ci kanam tuuti danaan waxtaan ak Sénégal yi. Euh, waxtaan leen fi Sénégal jëm ci am ndax loolu moo dal ci sunu kaw. incha allah waaw loolu moo tax sax ba ba gis boobu noonu sax. Hmm. yàlla dogal na mu jot ñu rëcc ñu dugg ñu dugg. Hmm. waaye sant yàlla moo tax it ci wut see rek ñu mu gën a gaawee. Hmm. dañoo fexe di situwaat suturaal moo ñu sagal. Euh, ndam yi sama ndam ndamu waa Sénégal gépp la. wallaay ndeysaan du sama ndam waaye ndamu waa adduna gépp la yéen ñi nga xam ne. da ngeen di jël samay wax di ko dugal nit de personne di ko liir ci adduna bi fu ne ma fay def. ak rawatina nag ndamu waa bi ci réew la Mhm. waaye nag danaa leen jox dig daje si suba mhm. danaa jàkkaarloo taskati xibaar yi mhm. génn wax li ma fas yéene wax incha allah mais jamono ji dama amee naqar ngir kenn koo xam ne ci sama jëm rek la yamoon ba yàlla dogala mu mu mu ñàkk bakkanam waaw noonu noonu noonu leen ma ko tàggee léegi ma ma amul tiis ba ci loolu laa noonu ba biir bi dugg wax dëgg yàlla yàlla suturaal ñu ñu gañee naka noonu ñu tàggee war na ci keneen encore waaw kon wax dëgg yàlla sëñ daam duñ la téye ci bi ñu ngi lay masawu coono di di leen ndokkeel bu baax a baax waaye itam da wax dëgg yàlla di bokk ak ñooñee nga xamante ni tey jii wax dëgg yàlla crise dal na leen ba ñu ñàkk seen bakken ci match bi te dara waralu ko lu dul sa jëmm ju jëmm ju xeebu ju jëmm ju ñàkk solo jëmm joo xamante ni doylawul ku dul Serigne Saliou Mbacke ibnu Cheikhul Khadim Mbacke tax mu ñàkk bakkanam ci wax yi nga waxoon doon bañ gàcce ak yu ni mel ñoo ngi la ci masawu di la ci ndokkeel di la ci di ko jaale bu baax a baax waaye di ko jaale mboolem askanam waaye itam di ko jaale askanu Sénégal wépp yi nga xamante ni wax dëgg yàlla euh, doon sénégalais bi mu doon doone tamit wax dëgg yàlla koo xamante ni wax dëgg yàlla askanam réewam cosaanam mooy li ko ñor ba tax mu ñàkk bakkanam ndax bëgg réewam bëgg askanam bëgg cosaanam ba mu ñàkk ñun askanu Sénégal ñu ngi koy masawu di ko ndokkeel waaye di la ci ndokkeelaale bu baax a baax di ko ñaanal sama borom yal na ko yàlla yërëm te xaare ko ajana te jégal ko mbooleem ay rëkk-rëkkam fii ma toog di wax ak yow nii mbooleem askanu Sénégal fi ma nekk nii ñëpp ñu ngi doon seetaan vidéo bi nga xam ne moom laa mujj a def ak yow muy woo bi ma la woo ci biir xel koom nga wax ak man tontonte ak man wax ma li may wax ma jàpp ko sàmm ko gëm ko doyloo ko di ko dundee ba fii ma toog di wax ak yow ñii ñëpp ñi ngi toog kenn ku ne di am mbégte yaa ngi dégg coow li mu bari lool ñi ngi la koy ndokkeel di la ko jaale bu baax a baax di ko jaale moom ci boppam waaye di ko jaale aw kanam bu baax a baax di la laaj kàddu gu mu jigéen lan lay doon kon waaw waaw xanaa yàgg rek ni ma la ko waxee ma ne ci naqar ba pare may laa saabel. sama kër ga ca Touba nan ma ci dimbali naa nit ña ña nga fa nekk mm. te yuuxaloo. ko ca ba bëgg mu amee ci dëkk boobu di Touba ndax bëgg ma gàkkal lenn loo xam ne yëppi Touba la wala lenn loo xam ne tuuma la day jógee ci sama kaw ndax bëgg ma loolu ndax gënuñ ko dugg Touba ak Sintaalu may ñaan fa sama kàddu nekk ñett nekk sama kër di yuuxaloo ak fa fa nit bàbb di ñëw. Mm. nan ma dimbali rek ñu dem nekk seen nit a nekk ci yeneen ci kàddu suñu borom incha allahu rabi taala bu soobee sëñ Tuubaa dees na la defal loolu ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di la ñaanal yàlla sama borom subhaanahu wa ci liggéeyu Sëriñ Saliou bi nga xamante ne gëmoo ku dul moom yaakaaroo ku dul moom doy ku dul moom nekkoon ci ay ndigalam biñ lay mujj a woo téléphone di ko di la waxtaan ak yow ci matt bi foofee nga ne wax ñu ci la ñu ciy wax yëpp ñu gëm ko doyloo ko gëm ko di ko dunde ba tey jii yàlla defal ñu ci sutura defal ñu ci tawféex defal ñu ci mucc ba ñu am ndam ci kaw ki nga xam ne moom lañ doon dajeel Bienvenue sur Salam Vision.